maa ngi lay nuyu monsieur le ministre ak ah, ñi nga àndal waaye ci ñi nga àndal dama bëgg nuyu rendre un hommage appuyé à monsieur Thiandala Fall ndax man maa ngi woon ca commission politique bi ak euh, Lamine Thiam ñoo représenté woon parti démocratique sénégalais au début ñun ñëpp dañ doon wax bon c'est pas sûr et tout mais il a suffi mu téye une journée ñun ñëpp à l'unanimité muy majorité di société civile Euh, di non alignés ñun ñëpp a taxaw ni vraiment l' administration sénégalaise mérite que vous tous vous applaudissiez luñ leen mën ci wax liñ leen di waxal ak ah lan la ci biir du benn monsieur Thiendella Fall je vous rends un hommage appuyé pour avoir mené ce dialogue national la à bout c' pas évident waaye vraiment def nga liggéey bu rafet boo xam ni dina def ci histoire parce que li liñ fa jëlee euh, c' est des réformes consolidantes loolu la ñu dem demoon uti ci dialogue national nit ñi dañuy wax dialogue politique bi mais sur les questions environnementales am na am na lu génn ci question euh, bonne gouvernance d'ailleurs par ailleurs pôle financier bi am na lu génn donc dafa di loo xam ni dafa nécessaire ci dëkk parce que damay faral di ko wax euh, damay dégg une certaine presse et certains politiques qui osent dire le dialogue est un euh, et que sais-je may fàttali même sous l'ancien régime en France il y avait les états généraux c'était quoi c'était des sortes de dialogues il y a toujours eu les sociétés en construction des dialogues euh, entre entre les gens de les forces vives de la nation lu normal la bu ñu demee ci réew mu am ay blocage ay am ay problème président de la république woote ne ni que maa ngi woo nit ñi pour ñu ñëw ñu dialoguer waxtaan waa da ngay taxaw rek di bañ pour lan pour bloquer le pays mais il faut aller discuter nous ne sommes pas des ennemis nous sommes peut-être des adversaires on a eu des parcours difficiles on a eu des moments difficiles mais warul tax tey jii ñu war a ku wax rek da da nga di ak a mais ku bëgg dem ci Macky da ngay dem ci Macky yaa moom sa bopp mais yow boo ne man opposant la PDS la keneen euh, leen ne xalifiste la mais dama d'accord pour ñu waxtaanee réew mi ndax waxtaan moo ma gënal bal génn waxtaan moo gën ñuy tiirante ay bal ñun ñëpp benn dëkk la waxtaan moo gën maa ngi fàttaliku je parle sous le contrôle de Abo mais jàpp nañ ko jour bi ñuy def verdictu Karim Wade ci ñun xale yi ñu jàpp mu tëdd kaso la bokk Ablaye Wade bi ñu demee taxaw buntu këram di yuuxu ndigal la ñuy xaar daf ñu ni ku defar réew doo ko toj de toog leen ngeen déglu ma bu kenn yëngu bu dara bougé mais sa meeting ngay ngay akal noonu Karim Wade de la manière il a fii nekk na fi ministre xam lu bëri ci réew mi il a toujours refusé de déballer ou di wax yéen ñii yow vous étiez substitut du procureur yéen ñii Henri Grégoire yàlla na ko yàlla yërëm ma euh, euh, euh, bu nekkoon juge da ko doon wax vous êtes très poli ñëpp a ko ko nangu dafa dal dafa téy dafa mën liggéey ànd ak ñoo xamante ni dañu gore donc tey jii bu ñu ñëwee ñuy wax ci réforme dama bëggoon rek rappeler une chose la réforme aujourd'hui du le contrôle euh, de monsieur Tiandala Fall dans le dialogue a parce que nous avons eu am nañ suñu droit le 20 parce que article L32 moo ne woon c'est une pour durée de cinq ans la déchéance des droits wax naa ko fii devant le ministre bind nañ ko suñu avocat yi wax nañ ko ça ne nous concernait pas mais dañu ne ni que loo xam ne dafa consolidant pour ëllëg bu dalee ñeneen pour d'autres frères sénégalais yu mu mën a dal dañ koy voté gis na fii ñu génn ci dialogue bi bu doon dañu bind frère Jacques sax dañ koy voté ndax ñun ñoo dem ci dialogue bi ñun ñoo nangu waxtaanee réew mi on refuse aujourd'hui d'aller dans la surenchère on refuse aujourd'hui de de de se taper et de se regarder en chien de faïence euh, may terminer rek di wax euh, président Euh, dama yaakaar ni war nañ mun a dem def délégation ndax ñun DPDS dinañ ko def dem jaale ji ñii dee ci bus bi ndax attentat c'est un attentat terroriste Sénégal yàgg nañ xam xëy na ñu xeex taal dara ay pneu mais ay xale xale bu am sept ans ñu lakk la ba nga jeex calciné ku am 21 ans c'est un attentat terroriste et je pense qu'on le dénonce pas suffisamment pour que dootul amati ci réew mi tey ji ñun ñëpp ñoo war a ànd dénoncer loolu foo mënti bokk ndax nag loolu moom suñu ko xam dañ ko daan dégg ci ay manifestant yu nekkee xale ci ay Afghanistan waaye fii Sénégal ñu fekk ay nit ci oto taal leen ba ñu lakk cinq blessés loolu moom waratul am Sénégal te ngeen xool moyen noonu leen jàppale euh, ñu amee bus bi di waxaat rek di répéter encore une fois ni que ñun euh, dialogue bi acté na également la révision du procès parce que loolu lañ doon wax ñun boolewuñu sax suñu question ci candidature yi ci état de droit ko boole te loolu ci de la justice lay aw may bëgg nag itam ngeen gaaw yëngatu yóbbu nañ yëf yi mu gaaw yëf yi gaaw ñu remuer procès bi nag Karim Wade ñu gis ci ah jàpp ne ñooy ñu kontaan ñëpp ànd defar Sénégal. merci. La parole est à notre collègue Rama Sissoko. Serigne Abo Mbacké Thiam le suivant. asalaamaaleykum. monsieur le président maa ngi lay nuyu di nuyu monsieur le ministre de l' monsieur le ministre du travail maa ngi lay nuyu di nuyu seen collaborateurs yi ngeen àndal di nuyu mais chers collègues di nuyu les militant du parti démocratique sénégalais yi nekk fii ci kaw depuis ce matin ñu ngi fi. mais avant d' entrer dans le vif du sujet monsieur le ministre dafa am benn question bu ma la bëggoon poser c' par rapport aux électeurs yi nga xam ne dañu inscriroon depuis 2000 euh, avant les élections législatives am na ñoo xam ne dañu seen carte jotuñu ko woon te dañ leen ne carte yi mu ngi ci commission yi te dem nañ avant euh, dernière révision yi dañu réinscrire xamuñu ba xam seen carte yu bees yi dina génn wala dañuy dem wëri carte yi nga xam ne moom la ñu inscrire woon avant les élections législatives loolu bëggoon naa ci am lu leer parce que dama ci am ay ay cas fële au niveau di département de Guédiawaye su ma jógee foofu rek le président Abdoulaye Wade disait Il faut travailler, toujours travailler, encore travailler et beaucoup travailler. Man mané, il faut dialoguer, toujours dialoguer, encore dialoguer et beaucoup Parce que si dialogue bobo, tay mo indi li tay. quelqu'un disait euh, hier, donné, le code électoral, c'est pas la première fois ñu modifier ko et ce sera pas la dernière fois ñu pouvons modifier. kon ñu xam ne yeneen modification mun na ci amaat à l'avenir ci kaw loolu may wax projet de loi bi ñun PDS moom jarul sax ñu naan dañ ciy sikki saaka ñun ñooy ñi koy voté te je pense que ñi fi nekk dinañ ko voté parce que ñi nga xamante ne bii tey article L 30 bi moo tax tey jii euh, ba 5 ans yi nga xam ne Karim 3 euh, ans et demi nga xam ne Karim tëjoon na ko depuis 2015. ba 2000 2015 bi mu pertee ses droits parce que dañ ko retiré woon sur les listes électorales novembre 2015 le 30 août 2020 mu retrouvé waat tous ses droits il est électeur et éligible kon Karim war na mën a nekk sur les listes électorales war na mën a bokk aux élections euh, présidentielles de 2024 te man dama yaakaaroon sax monsieur le ministre booy ñëw tey di ñu indaaleel carte électeur u Karim Meïssa Wade le président Karim Meïssa Wade xam naa nag dina ñun ñoo koy jël si sax nag envoyé koo ko Qatar mais du yow yaa koy envoyé waaw incha allah ci kaw loolu may wax rek ne yàlla nañu yàlla musal ci seytaane àdduna loo gis rek waxtaan la te fii la ñuy wax rek dañ daan Sénégal benn bopp la kenn mënu ko xar ñaar effectivement benn bopp la kenn mënu ko xar ñaar parce que lu ñu munti waxante fii bu ñu génnee dañuy waxtaan ci biti loolu aussi dialogue la ñu xam ne ko lépp dañ ko war a dialoguer parce que ji dialogue bi tey moo indi tey ji suppression euh, CREI yi dialogue bi moo tax tey jii ñu réviser parrainage parce que nag parrainage bi dañ ci sonnoon trop damay rappeler en 2019 bi ñuy ab non avant 2019 sax bi ñuy voté euh, euh, bi ñuy voté CREI bi bi ñuy voté nu mu bi fii ci assemblée nationale bi may jënd sama kër li kii di wax sànq départ gaynde arrivé muus moom laa defoon photo yaa ngi fi bi may damaa solu ba jekk ñëw fii ñu sànni ñu ay lacrymogène bi may ñibbi kenn xamul lan laay nirool kon tey loolu buñ ko dindee